ñàkk nangu moo sonal te am na loo xam ni boo ko demandé yàlla dangay sonal sa bopp pourquoi li tax diw am li mu am pour pourquoi diw yegg fi mu yegg heure boo ko demandé coono dikkal la bu ñu nangu woon sëriñ du am sëy bi na tas ñàkk nangu la te da ngay gis ñiy liggéeyante dañuy jegante yaay ju jur sa doom ba pare yaay ju jur doomam doom ji takk ku dul mbokkam mu dem ci sëriñ di liggéey doomam pour xabtal doomam mu fase ki dul mbokkam mu dugal mbokkam <laughs> lii moo am senegaal maire yaa ngi senegaal gi toog maire yu ci bari bu seen doom takkul seen mbokk duñu d'accord ak moom kay sëy ca kër ga du am jàmm sa jàmm mi ngi dépendre ci yaayu ko góor ki bëgg la nga nekk mbokkam lii moo fi am leneen amul senegaal lii fi am moo tax maire yi naan la aawo mbokk ban téere lañ ko bind kuy aawo sa mbokk ngay takk ban téere la am xanaa nee ma téere chinois yi ma d'accord ak yow nee ma téere chinois yi rek ma avancé mais bul ma ni chariatul muhammadiya amu ci takkal aawo sa mbokk amul boo aawaloo sa mbokk léegi luy problème bi loolu amul existé wul nga takk jigéen indi ci kër gi sa yaay teg ko bët te dama lay wax benn affaire charia waxul takkal jabar pour sa yaay loolu charia bindu ko amul sa yaay bu bëggee boon wutal ko 40 bon su bëggee jànq wutal ko 40 jànq mais damay takk jabar parce que sama yaay nee na bëggul kii man naa takk ki sama yaay bëgg te nobuma ko mais sama yaay da koo bëgg awma pexe doo ko téye da yóbbu ci nga takk ko ba pare di ngol ngol di toppi ka nga bëgg tam xol du fen te du oom bañ koy bës <laughs> yow tam fan nga nekk wal xubbu yaataridu lazaati bil alami feebaru mbëggeel effereer gan faju ko feebaru mbëggeel doli paraan faju ko feebaru mbëggeel takk piriina faju ko feebaru mbëggeel li koy faj jàkkaarloo ki nga nopp regarde yeux dans le yeux bu dul loolu du wér